kon ordinateur bu ñu toppee ay carrière ba toll fi ñu toll nii actuellement nii mu bëgg ci bëri dër bi sax muy jéem a def ñu ko jox gis nga taxaw moom la taxaw rek ordinateur moom la taxaw parce que da nga gis ne moom ku sew la. Mm-hmm. te bëriwul ay galaaj. Mm-hmm. mais ku nii technique la rek amul galaaj da xam lan mooy bëre. te jamono biñ nekk nii buñ bàyyi ko bañ def rek dina buñ doon sélectionné mm. boo ku gën a rek rek ci champion yi nga xam ne dañuy le roi des arènes. Hmm. di nga teg ordinateur. Hmm. Hmm. te li may wax ni bu nekkoon dañuy def gala. ne nañ teg bañ suuf rek. jël benn promoteur boo xam ne nga teg lamb ne ku bëgg a ñëw ñëw. teg ay milliards. Modou Lo dina su nekk de xoolal da nga xam ban morom mooy. roi des arènes ça pourtant ñuy wax ay ay ay Modou Lo Modou Lo Modou Lo roi des arènes. jàpp na ni carrément yow. ordinateur su doon bëri Modou Lo tey tey. bu bare simple képp bëree simple ñu xoolal xoolal ñu xoolal ñu boole dix combats dix. Hmm. dix combats. Hmm. ah dix la dix. Hmm, muur de man man man de nangu naa. Ah. buñ ne woon nañ nañ ko jël nañ leen jëlee combat. ñoom ñaar ñu bëre bu dee bëre simple kese. dix combats dix combats. barke Ba Niass man ci or ci ordinateur laay teg. léegi xam naa ordinateur. mooy ëpp li muy daan ko moom la bu boobaa. dama la ne léegi soo bëggee yow yow yow yow. waaw soo xool xool bu soo bëggee. Ah. fii balaa un mois un mois. waaw su génn weeru koor. nga jël ordinateur. nga ñëw géej. waaw maa ni ko moom taxaw. <laughs> barke Seydina Mohamed. pare nga yow yaa tax loolu lay la si pare. lii bés boo ko defee <laughs> ah. soo bëggee laa wax ni nga andi ordinateur. waaw ñu dem géej. muuru mhm. taxaw. ñu xala ñu romal dis Sénégal gi ñu nekk nii mbëri boo jël instant bi di ko natable ordinateur ci bureau simple yaa ngi ci erreur. dina ko daan <laughs> dina ko daan moo ko dafa export mm-hmm. moo ko gën a maîtriser nan la ñuy daanee nit actuellement ni ordinateur yow moom bi ne xale bu ndaw lay lay dugg ndaf lañ jamono jooju muy ma di dem ba demi final ndaf bi xale bi mu nekk bi muy def ay mag dafa yàgg bu fi mu toll nii te gars yi daanuñu ko ñoom kiir mu toll ñoom jama déggoo ma xanaa ordinateur xoolal ma ñoom ah mais tamit nañ dem lii ma lay wax nii. waaw bés boo ko bés boo ko wélee rek. dinañ ci egg bés a ngi ñëw mën nañ ci ak Amet sëñ Amet mi day a baax a mm. baax. di ci liggéey. non fay day daanaka. non non man damaa xam. booy xam naa say bër lañu rek moo tax instant yi da lekk ba si biir fees dell rek. lii ma lay wax nii. danaa bëgg a booy kontaan rek. yàlla yàlla yàlla xam na ne bés buñ toogoon bés buñ toogoon combat yi ma lay wax nii. Mm. def ko gala comme ni ñu ko defoon ci euh, bi bi Ama Baldé daane Tapha Tine. waaw xam nga dañoo dund ay gala yu bëri nga xam ne dangay jël mbër ay sélectionné ba a xool ci pois rek nañu xool ci mbër yi nga xam ne ay champion lañ ci Sénégal yaa ngi dégg jël leen pour bëre simple rek amul leneen lu dul mbapat képp foofu la ñuy xamee ban mbër mooy champion ci bëre kan moo dàq bëre. Mhm. xam nga dóor nit mu kaw loolu mën nga am say li ngay def dóor nit mu kaw parce na man ka ne daa bëri doole. Mhm. yaa ngi dégg mhm. yii ñuy def nii bu nekkoon bëre simple la. ci la ñu soog a am lan mooy roi des arènes mais lii ñuy def nii roi ordinateur seetaan nga bëre ordinateur ak franc ah, koo ci gis ku mu ko xam ne daan nga ordinateur sax dalay leer ordinateur mi mm. li ma ko daan franc lu mu daan ordinateur dama déglu ma wax mais nag ma ne Reug Reug laa fi gis moo ëpp li mu daan ordinateur waaw te dañ toog mu nangul ordinateur da koy nangul parce que dañ ko nangul que ordinateur mooy ay vidéo ay vidéo dama koy tapé mhm. tey nag loo xamul sant dama koy faral xaluy ma dama koy faral parce que ordinateur. raw mm-hmm. papam mm-hmm. moo tax bu muy commencé di bëri ay raw gàddu laa commencé. di koy bàyyi xel. te nag te nag sëñ bi. Mm-hmm. ñaaxaar. Abdou Faye. Abdou Faye ñaaxaar. raw papam la. moo tax moo ma dellu am naa dama doom bi bëri mhm. ma yàgg ko seetaan aa barki salaatul fatiha mhm. dama kaa nangu bër olympique bi muy bëri bi sax mhm. damay tapé di koy seetaan xam nga nangu bëri xam nga bëgg barki Seydina Mohamed wante dàqul bëri Modou Lo de yow xam naa danaa la ma rek déglu ma wala kay ñaan wala déglu ma sax déglu ma déglu ma gis nga yow sayfa nit ki wala nga nangul ko bokkut ak nga xam ko yaa ngi dégg li ma la wax ordinateur boo xoolee histoire Sénégal ci lamb ci bëre li muy def ci carrière Sénégal ba mu daj. Hmm. am mosuma de ko ko def ci làmb dàqu nga la wala nangoo ko. lan histoire Sénégal li mu def ci bëre simple. di jël ay drapeaux. waaw ci 2012. jusqu'à 2000 bi ñu nekk nii 2022. 2024 2024 dimanche yàlla ma kii dama juum. Hmm. histoire lamb ba léegi bi fi ñu toog nii amul ku ko def ci bëre simple. waaw parce que mu si concentré wu moo tax. wala léegi concentration boobu noonu nag tey. Hmm. bu ñu jëloon gala yi nga xam ne ñoom ñoom ñëpp ñoo concentré comme ñoom. boole leen benn billaahi wallaahi taalaahi booba muy jeex ci lamb ji ma daanu du ma nangu ne moom la ma nekk ci kaw ordinateur ci bëre simple. parce que affaire bi affaire du question de poids du question de dóorante question de psychologie contre ordinateur. yow du moromam ordinateur du boromam boo ñaax. du moromam ñoom ñëpp moo leen mën yàlla xam na ko. Mhm. ordinateur du moromu ñi ngay wax nii ñi ngay wax nii. du dara moo tax may wax mbër yëpp dañoo jaar mbapat. Mhm. dañoo jaar mbapat bëri simple. léegi boo kii ordinateur dafa focus si bëri simple bi. Mhm. moo tax mu siiw. wante booy nekk di bëri nii booy nekk si kaw a kaw kaw. parce mhm. que Seydina moom ñoom ñëpp mu bëri. souvent booy parcelle ngay gis nii booy parcelle. parcelle la ñoom foo yu bëri Franc daa mun bëri. Talfa bi fi jógee sànq dafa mun bëri. Góor sax même chose. na ngeen ah nañu ordinateur. kooku àll ñi ngay wax ne yëpp nañu ordinateur. ordinateur ñoom ñëpp boo day def day taxaw ne ku ma jox. combat ko. kan bu mu ëbbali. ordinateur boo génnoon avance am nii ci ci waa bëri mbul. waaw da nga gis ñu bari ñoo xam dafa am ñoo xam ne ñoo gën a priorité bëri ak moo ah, ordinateur ñu dul ay ëbbali. c'est Ameth débat bi waaw ah? waaw loo ci sànni. waaw man li ma siy sànni mooy ah. euh, man li ma gëm te xam ko mm-hmm. mbapat yi may gis dakaar mhm. yu bokkut ak mbapat yi fi séeréer si di tëgg. Mhm. du mbapat. du waaw. parce que man maa ngi fiy xaw a yàgg ci ba ma fiy jàngee. Mhm. di seetaan mbapat yi fiy am xam nga Dakar. loolu li ñuy def mbapat jëlee benn mbër géejewaay mu ñëw Medina bëri tey dem ñibbi ñu ne mbapat mu daan ko benn jël mu jeex mbapat man loolu def ma ko mbapat. Hmm. waaw mbapat li ma gëm. mooy tournoi. tournoi lay ne. xale yi ki li muy wax ci euh, ordinateur. Hmm. ñun ñëpp sinig lañ dëkk. Mhm. benn waaw sinig lañ dëkk. Mhm. benn mhm. Euh, Modou. ak ñi mel ni moom. dafa bëri ci zone boobu noonu. trop man loolu laa def muy làmb te man gëm naa ne. buñ tëggoon tey. drapeau. ñu ne roi des arènes la ñu topp yëpp nañ ñëw. ñu tëgg 100 millions su booy duggee. Ah. ñoom ñoom ñëpp kenn du si ci jël. <laughs> nii Boy nii Modou nii Ama Balde. Mhm. nii sama copain Salif. Mhm. gars yooyu mënuñ ko jël. parce que booy yi liñ tàmm ñii tàmmuñ ko. bëri bu yàgg bu non non duñ benn. non non duñ benn mënuñ ko. Mhm. te kon nag ak papa du benn de. xam nga kon nag da ngay bëri coono si muy moytu gaañ la. Boucar Boucar waaw Boucar. waaw kii bi julli bi ñooñu. waaw Boy Niang. Mm. Ama Baldé. Mm. ak yeneen gars yi fii dañoo mën a bëri man. jaar non non waxuma mënuñ mm. bëri. man damaa jaar grand. oui ma tournant tournant dama jël. rek rek jamono biñ nekk nii. rek rek bi nga gis nii. jamono bi nga gis làmb ay bidéew la. waaw ma ne làmb ay bidéew la. non bu nekkoon bidéew la bu nekkoon bidéew la rek. xoolal bëri sàmm bi nii. waaw ay bidéew André jaar na fa. Mm-hmm. ñëpp jaar nañ fa. Mm-hmm. ay bidéew la soo bidéew su xasee ba tàkk. day tax ba si nga gis ni ay vidéo la. Mhm. yenn saa yi seen vidéo sax dafa tax. nga ma déglu non mën nga ma déglu. léegi damay leeral foofu noonu question de vidéo. Modou may ma may ma leeral may ma may ma Modou. may ma may ma man du ma. waaw may ma may ma wax la tuuti rek. je suis pas d'accord gis nga loolu ngay wax noonu. ci ay ñoom booña ak yooyu ay vidéo man du ma d'accord xam li tax. Mhm. xam nga ordi am na fi jamono mu am jafe-jafe benn année ñëwul. waaw maa ngi koy nuyu au sama frère bi maaram mhm. ñuy ànd di dem Touba Euh, ma ne ko ah sama waa ji day ñëwaat de mu ne ma ah Dakar du saf ñaari yoon man ne ko yéen kon xamu leen nit gis nga ay problème mu biddiw si maara beeg nangam nangam day fekk yoroo lu wér. loolu deuxième la yaa ngi dégg ak nga ak nga def ko folklore tappale ko ba ba njëkkati la nga dem. mais boo yoree lu wér ba ilaa yow mi yàppan nga fi jógee. Hmm. la ngay def danga nga koy def. loolu laa gëm. Hmm. Hmm. waaw. man man loolu loolu laa gëm te man li ma gëm si ñii ma la wax nii. da nga fiy gis ay booy yu da ngay toog ñu ne un an amuñ combat. Mm-hmm. te Grand Yoff mais comme fi day tëgg mais doo leen gis. fi nga wax ci loolu nangoo dem mënu mais même tuuti ma moo xam ne moom am na mm-hmm. bay rek. Mm-hmm. gars yi dinañ ñëw mais xamul dara. loolu moom am na. waaw waaw non ci wàllu biddu yooyu wax fitis boo ko yoree jalang lu ñuy wax jalang boo ko yoree boo xamul dara it gars yi dinañ ñëw far force. far force mooy ba jën yooyu ñuy sàmm di ci tuur ay deret ak sangara bokkut ak xam xam-xam xam-xam mën ngaa sell di jàng alxuraan. di ah. nekk imaam te yor ay sunguf yu wér koo jox mu tàgg. bàyyil am nañ benn internet bu dugg Njaga. Njaga maa ngi lay ziar. Njaga yaa ngi en direct sur Lutte